asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, man la Moussa Thiam di coordonnateur réew mi et adjoint au maire de Ngaye Mékhé maa di waxtaan ak yéen di waxtaan ak waa Sénégal di waxtaan ak waa jaspora bi ci tolluwaayu réew mi ak réew mi fi mu jëm eh, ci kàttanu yàlla ginnaaw bu nu waxtaanee ak ay kilifa waxtaan ak ay mag waxtaan ak ay ndaw waxtaan ak mu nekk ci jaspora bi fi ma nekk jamono bi may wax ak yéen seet na ni Sénégal fi mu toll coow li bari na wax ji bari na surtout wax ju ñaaw ji ji ñuy def ci réseaux sociaux yi te loolu Sénégal ñëpp bokk ndey bokk bàyyi kon loolu warul am ci sunu réew ndax fi ñuy jëmee mooy ci ak bañante ak noonoo te loolu du luy amal njariñ réew mi fi àdduna bi tollu mooy njiit dañ ko war a tànn njiit dafa war a am xam-xam njiit dafa war a bëgg jàmm te Sénégal gépp sedd nan ni le président Idrissa Seck nitu jàmm la nitu xam-xam la mën nañ ni ci Sénégal fii ñu toll ak ni réseau sociaux yi doxe moom dong la ci njabootam dul saaga du wax lu ñaaw te mooy kilifa goo nga xamante nit aussi tere na njabootam ku yëkkati baat bu ñaaw jëmale ci ci moom wala nga jëmale ko ci njaboot gi tontu rek moom la koy faje tontu rek moom la koy faje tontu rek moom la koy faje bañ a tontu kon mooy kilifa gi nga xamante ni Sénégal moom la soxla jàmm nag moom moo gën cim réew bala ngaa xam ni jàmm moo neex nga bañ a am jàmm te li amoon mois de mars kenn ñaanatul yàlla mu dellu ci Sénégal te loolu nag benn li koy indi mooy maanaam lu fi aman la amaat na fi te mën na amaat nag buñ ndaxante ñun ñëpp ay sénégalais lañu kenn fàttewul euh, deux mille 2011 kon tamit war nañ mën a moytu deux mille le 2024 la amoon deux mille 2011 amoon mois de mars dellusiwaat ci réew mi li koy indi nag mooy maanaam bëgg lu mënta nekk wala wax lu mënta nekk wala ay nit xiir nit ci lu mënta nekk parce que buñ interroger histoire muy taarix ci ñi daan wut nguur ñépp am na noo nga xamante ni ku koy wut am nga du baax wala am nga soo ko amee mujj ga du baax kon ñun ñu ngi woo ñépp ci dal ak ci teey ak ci jar ñun nag di réew mi ñu ngi seet ni sun ànd ak Benno Bokk Yaakaar Idrissa Seck ci ngor la ko teg ak ci gëm réew mi ak ci bëgg réew mi kon fii ñu toll li mën a yóbbu Sénégal ci kanam ci jàmm akuk dal mooy sa Seck nekk le candidat de Benno Bokk Yaakaar aux élections de 2024 su ko defee réew mi amuk dal ñu jot ci réew mi continuer liggéey bi nga xamante ni moom la le président Macky Sall commencé woon ñu nekk ci di ci liggéey di ci góor góorgóorlu Sénégal am jàmm am salaam wër nañ réew mépp wax na noog waa réew mi xam nañ ni daal jàmm benn gaañu gaañu nit as waxuma la sax bakkan mais gaañu gaañu nit wut nguur jaru ko kon nañ delloo si xel yi te xam ni la candidat idéal pour le Sénégal pour l'Afrique pour dalug réew mi pour kilifa yët am jàmm ndax kilifa yi dañoo soxla jàmm kenn war leen a pour ñuy dugg ci politique bi walla ñuy dugg ci jenn wax ji loolu nag li ko mën a maye mooy nit ñi nga xamante ni ñoo jiite senegal nekk fi ñëpp ànd ak dal seet li nga xamante ni mooy li indi jàmm ñu def ko le candidat de Benno Bokk Yaakaar ñun daal bëgg nañu Idrissa Seck waxtaan ci ak Macky Sall ndax Macky Sall aussi moo ci yor baat bi ëpp doole waaw ñu teel koo def bàyyi ba dem ci mujjantal di ko def su boobaat du am du am njariñ ci sama jàngat ak sama xam teel koo wax nit ñi teel cee waxtaan teel ko nangu ñu xam ni kii mooy candidat benn Bokk Yaakaar mu Idrissa Seck ñu jëm 2024 incha allahu rabbi yàlla defal nu ci ndam loolu daal mooy déclaration bi nga xamante nii waroon naa ko def en tant que coordinateur et adjoint au maire de Mekhe di responsable ci parti réew mi waaw kooku mooy wax bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yal nañu yàlla dolli jàmm.